voilà kon nag mbokku euh, spectateurs yi seetaan euh, Equivox TV ñëwaat nañu beneen yoon di waxtaan si te nag yi ñu tax a jóg tey mooy euh, alliance biram donc ku ne alliance biram ne <laughs> yëmbal lan moo la boole ak ak écrit Baol ah di wax onze billah bismillah ina wolu yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba yàlla rek koy dëgg te mooy borom dëgg moom mi jox bàmba dëgg ba tax bamba signé bamba ne wa salaamun alal man ni tabaxal huda waaw gannaaw bañ sante yàlla julli si bi nag di gërëm suñu ñaari waajur di wax suma yaay yàlla na ko suñu borom xaare àjjanay firdawsi suñu papa suñu borom bàyyi fii njëriñam di siyaare suma sëriñ di ko ñaan tamit suñu borom xaareel ñu ko àjjana muy sama wasila muy sëriñ Basiru faal alxuraan ku ne xam na ne semaine bii ñu génn la génn àdduna àjjuma lañ ko doon ñaanal di siyaare njabootu maam Serap Fall yëpp di leen ko jaale. rawatina njabootu Serigne Mbacke Fall bi waaw képp ki nga xam ne taal bi Cheikh Bassirou Fall alxuraan nga woon rek ñu ngi la koy jaale di ko jaale lislaam bi yëpp ah ndax Serigne Bassirou Fall alxuraan moom ku ko xam-xam ne moom nitu diine la woon kon bu nelawee bu dëddoo ñëpp a ñàkk mais rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk si njabootu Serigne Touba bi rawatina si njabootu waajuram nga xam ne muy njabootu maam Serigne Fall bi yëpp waaw di leen ko wax daal yàlla na ko maamam ja Seye Ibra ak sëñ Mbacke Fall ba teeru waaw bi nga xam ne mooy sëñ Gunda Fall ak ñoom sëñ Bada Bass ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax di siyaare suñu sëriñ suñu bunt si yoonu kër sëriñ Touba muy sëriñ Makhtar Mbacke Noreyni di gërëm maam Cheikh Fall ibnu Cheikh Ablaye Fall Ndar di gërëm naa Seydina Ousmane Mbacke Noreyni borom guy Fatou Mayga di gërëm sëñ Mbacke bu Mara di gërëm sëñ Fallu ba sa Touba borom Ngor di suma xarit wax dëgg fi yàlla du suma Mbacke mbaake boo xam ne mën nañ ne ay morom lañ mais suma sëriñ la suma lépp la di siyaare tamit suma waa koñ ñëpp di wax ba salaam ñu dem ba si kanam lan moo la boole ak ak ak Bawol te te nga te nga dëgg fii di yëmbal lan moola la boole ak ak Bawol. waaw loolu mën nañ ne ba tey làmb la rek parce que man mën naa ne Bawol Bawol laa Bawol Bawol laa si ndey Bawol Bawol laa ak si baay man maa ngi dëkk Bambey kon kooku mënoo ko génn Bawol Bawol. rawatina Tafa bokk ak sama yaay seen papa yi ñoo bokk. muy sama nijaay. xam nga mais yëpp loxo dëj ma fa ndewaan tamit di sama maam di sama nijaay. Mm-hmm. mbay ndewaan mu yor suma lépp waaw mbay cuun mun naa ne suma lépp moom la waaw mbay ñing ndax suma lépp moom la moo jàpp sama loxo indi ma si écurie bi moom ak suma grand zilman yi léegi mu ngi Espagne nekkoon écurie ba Boy Zil xam nga ma nekk fa ak ñëw tamit bawal ñu yaatal ma wax dëgg fa yàlla ma nekk fa nekk si écurie ba ñëw sama grand sax ñagas moo ma tuddee woon findi feer ma ñëw écurie ba tuuti loolu ma tuddee ma findi feer findi feer lañ ma daan tooñee écurie ba ma ñëw fa tamit écurie ba ñëpp accueillir ma wax dëgg fa yàlla yor ma gis téye ma téye bu rafet ku si mel na suma grand Socé Mané ma koy nuyu bu baax a baax a baax gis naa fi may féete gis naa fi may taxawoo Socé waaw suma grand Zal Bambey Ndiaye Tine xam ak suma gars yi ñoon Candeela ñoon moo taalibe bébé Lambaay caatu bawol ku lim rek juum ñoon seen maanaam yow fi ngay jógee sax du di dem entraînement bawol waaw fi laay jógee fi laay jógee di dem bawol mbooloo dina sori nag si déggin quoi mais si demin bi soriwul mettiwul waaw parce que yoon bi doo am sax 30 minutes mhm. man mën naay dem Dakar kii dem fii di dem géej man mun naa koo njëkk a yegg mhm. très bien buñ gëstoo si gis ne biñ ñëwee sa kër ba fii ku mel ni champion bu mag ñu koy wax ñaq ji jëriñu gis nañu mu ànd ak yow te mu nekk écurie Caaroy mbooloo lan moola boole ak moom waa kii maa moom du làmb ah, kii suma mag la wax dëgg fa yàlla di suma xarit suma lépp muy ñàkk jariñu waaw moom suma mag la lool lool lool di ma taxaw tamit si lu ne ñàkk lépp lu ma xewle des yi nekk ak suma grand bi Baye Tafatine nekk ikiri Jali Ibrahima Thior suma rax ji ceer guy gi ñun fii noonu lañ dëkkee ah ñun fii man bawal laa nekk mais mun naa ne sama lépp fii la boo demee fee di nga fa fekk ay ñoon Papa ñoon Baye Ndiaga ñoon Boy Yëmbal ay ñoon Rëm bëri nañ fi xam nga nga ñëw fii fekk fi ay booy naar ay baaba jaxal ceer guy gi ñoon ginne moori tumaane xam nga pousa booy bëri nañ fi ko waa xam nga ñun ñëpp noonu lañ demee man a ñax moom day dëgg rek wax dëgg fa yàlla waaw mu mu yéene ma lu bari si lu ne mu ma siy conseil waa di ko ñaanal moo xam lu mu bëgg yàlla na daje ngërëmal Moustapha waaw ñu ñëw fekk la si euh, euh, salle bi tamit nga fi entraîné naka ngay waajalee sa sa sa combat champion. waaw combat bi du si mën naa combat bi ñii nga gis nii si ginnaaw ñoom ñoo yor préparation bi yëpp muy ñàkk di baay tafaati di ceer guy di baaba jaxal di móot taalibe surtout cantee la waaw man ñooñu ñoo naa mën nii la ak ne ak ne xam nga la laa si am. tey géej lañ jëm. fajar gi fii lañ jëm fii lañ jëm fii lañ jëm man du ma si dara. man bu ma amee doole ñoom la bu ma amul doole ñoom la man moom sëñ Fallou mais nag ñu ngi waaj bu baax quoi. waaw ñu ngi waaj bu baax a baax. d'accord. Euh, nga war a bëri ak kii di caatu ngéwél xam nga xam nga ko ndax. waa caat xam naa ko nii ah, xam naa ko comme ni ñuy xamee mbër rek wax dëgg fa yàlla muy champion mhm. waaw muy champion bu mag. Mhm. waaw muy champion boo xam ne tamit yàlla da ko may dafa a wax xam nga booy bëreeg xam ne di nga moo xam ne day wax moom waaw booy bëreeg moom muy laaj dëgg dëgg dëgg dëgg parce que man am na benn game boo xam ne nekkuma si te moom dafay nekk bi nga doon moom dégg naa li mu wax lépp mais li nga wax daal bu mu dugal sama yaay lii la ma waxoon nag lee yaayam dama koy jàppee comme suma yaay bu ñuy wax man ak moom man ak moom la mais yaay na ma bul def lii wala sama yaay nii li ma wax man la ko wax garaaw man mun naa gérer lépp koo ne taalibi Cheikh Basirou Fall alxuraan boo mënta maîtriser mënoo jéggale rek doo Baye Fall mais bëgguma mu si làmb ji naa bañ wax yaayam dara mais keneen wax yaayam dara mu gis si boppam te loolu mën na ñàkk kon man ak moom la nañ doxal man ak moom rek mais dafa mel ni yow euh, bu bu ñu xoolee seen seen combat yu mujj yéen ñaar dafa mel ni ñàkk jëriñu moo la xaw a gën a nekk en form fi ñu toll nii parce que yow mm, euh, xam nga sa combat yu yu mujj Euh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi bëri ak euh, bébé bis <coughs> mi moo la daan le 3 février euh, de 2019 ya sa sa sa combat ak bulldozer nekkoon sans sans verdict nekk le 21 avril 2019 ki ki nga xam ne moom mooy Mbaye Tine junior yow daan le le fi février de de 2018 ki nga ki nga xam ne mooy mooy Weuz Diambar it yaa ko daan le le 13 avril 2018 mu mel ni 2019 ba 2020 amuloo ci ndam. waaw lan la noo mën a e, e, expliquer loolu. waaw 2020 nag yàlla def na bëreegu ma si quoi. 2019 bi quoi. waaw 2019 bi dama bëre man ak Beye bis mi wax dëgg fa la muy combat boo xam ne képp ku nekk si milieu làmb moo xam nga nu mu demee. Mm-hmm. tey si ki nga ki nga xam ne moom mooy caatu ngéwél ndax ndax xam nga lan lan lan moo la booleeg moom. caatu ngéwél dara boole wu ñu lu dul defee teg sans verdict bi ma jógee wax dëgg fa yàlla man maa ngi koy dégg muy wax rek xam nga nit moom bu mu nee wax da koy bàyyi mu wax. mais caatu ngéwél mu amul woon defet mhm. aw ma sans verdict duñ mos a bëri si àdduna yàgg na bëgg a bëreeg man. Mhm. yàgg na ma topp man ma xam loolu mais dama noppi xam li ma xam rek. Mhm. parce que ay morom la ñaa daanaka mën naa ne ñoo duggandoo si làmb moom bëriwul ak ñoom ñi ma daan man ba daanu leen c'est que làmb day baaxoo benn affaire boo xam ne xam nga daa métti daal làmb boo si amul ndey dafa xaw a métti boo si amul ndey mooy mooy maanaam amul wéeruwaay làmb ñun lépp ñoo koy defal suñuy bopp ñun dañuy bëre gin mbooloo bi ngay gis muy topp suñu ginnaaw ku nekk naan alliance dafa am combat dafa am jàppale musuma bëre ñu may ma cinquante mille man su booy ñooy defar ay carte jàppale sa mbër ay tig mille dix mille cinq mille cinq mille deux mille deux mille ñun dañuy fere combat trois millions wala lu ko teg te wallahi azim am suñuy kase eggul foofu amul ku ñuy jàppale musuma ñëw si laam benn yoon laa mos a bëre jaay tuwaa bologu biyee mooy sama premier combat musuma ñëw stade mbër mi bëre grand combat ëpp ma fa mbooloo bu dul dafaa gay deux armée sama premier combat boobu daal laa xam ne mennum armée moom fa ëpp mbooloo ñu dañuy volonté wu mais tamit xam nga volonté wu day neex tamit nga am ku nekk sa ginnaaw yow nee nga euh, sa ñaari sans verdict ak ak défaite benn sans verdict bi ak ak ak ak mooy sa ñaari combat yu yi moo la boole moom waaye man dama gis ne am am na leneen lu lu leen boole champion mooy yéen ñaar da ngeen xaw a tolloo ab palmarès yow yow yow da nga am sept victoire moom mu am sept victoire yow nga am deux défaites moom mu am deux défaites yow nga boole ci am am benn sans verdict te moom amul sans verdict kon yéen ñaar seen palmarès xam na leen a boole ah champion la. xam nga làmb léegi comme gars ñoo ko bëgg a indee ay palmarès rek palmarès boolewul kenn xam nga tax palmarès boolewul kenn bu doon palmarès day boole. Biri bi muy am ay 19 combats ay 19 victoire 21 victoire boobu Modou Lo amagul sax 13 victoire te Modou Lo ko woon kase bu doon palmarès Papa Sow ak Siteu duñ bëree. ay affaire palmarès dañ koy teg fee. làmb du question palmarès mais da ngay bëree ñi ñi tar. man bu ma jóge woon si bébé bis mi am si ndam nit ñemewul a taxaw ak man di ma wax ay ci at man daanu naa ba pare sax ki kay Cité Berrière bi seen yéen a doon dox galaa boobu noonu man ak gin bu yoof mhm. ak booy Dakar mhm. ak Cheikh Super jamono yéen ko doon dox mhm. daanu naa teewul samay moroom lañ ma doon proposé. dëgg la mais xam nga so bu ma déggee ma ne la palmarès daf leen boole dëgg la li nga wax am na maay boo xoolee combat bu mel ni Franc ak Tyson 2 Franc mu ngi ci 9 combats Tyson 2 mu ngi ci 18 combats xam nga kon mu ngi def la mais de dama la bëgg na yéen naar ay ay ngeen ay naataangoo ngeen pare xaw a xaw a tolloo daal palmarès xaw a xaw a xaw a yem maanaam ni ngeen di avancé si làmb xaw a xaw nuroo gisoo loolu yow waaw waaw non moom moom jàmbaar la caatu ngiwul moom ku ko xam xam ne wax dëgg fa yàlla mi ngi wone boppam si làmb quoi parce que nit tamit lu mu bon bon bon séeréer ko boppam mi ngi wone boppam si làmb mais caatu ngéwél man ñi ma bëreel ba léegi gisee kenn ku mel na ñi ma bëreel xoola caatu ngéwél ñi mu bëreel rek mm-hmm. eh, xay na nag ñu bëri mën nañoo umpale mm-hmm. mais bu heure bu arbitre sifflé man ak moom ne ko pare nga pare nga mm-hmm. wallaahi azim di ngeen xam ne man ak caatu ngiwal ñu géem sax billaahi waaw bokkuñu caatu ngiwal nee na yow yow sa mënin mooy arbitre sifflé nga nga taxaw benn place est-ce que benn combat mu sa taxaw man benn combat laa bëre mu naan taxaw te li am si action yëpp maa ko def muy man ak Bulldozer mm-hmm. jour boobu kenn jéppiwuñu maa ngi koy dégg muy dugg si ay détails yoo xam ne xam nga mm-hmm. man mu neewu ma noonu ay présenté ay wax kii munul dara xam ku munul dara du tegle sept victoire man dama tegle sept victoire ku mënul dara du ko tegle mën naa dara mënuma dara garaawul nangul naa ko man mënuma dara mais heure bu arbitre génnee suñ diggante lépp lu ma mun moom dina ko xam man ak caat yàlla xam na ne tooguma sax di ko géem bàyyiwu ma ko xeeb sax. ah bon non caat méttiwul. attends caat caat ñemewul. yow lan nga xeeb ci ci caat ba ne ba ne ñemewul wala wala wala du combat. non xeebu ma ko de man ñemewu maa jóge si li ma jóge naan damay xeeb mbër. yabeewu ma noonu samay supporters sax ma jugee si defet sans verdict ne damay xeeb mbër xeebu ma caatde mais daf ma wóor ne billaahi billaahi attanu sama giita ngaas non non non non jógewu lan la da nga koo bëree nga ko ëpp wala doole nga ko ëpp wala loo ko ëpp caat maa ko daa bëre hmm. maa ko daa ko xeex maa ëpp sañ-sañ ah waaw hmm. caat benn loxo lay xeexee benn loxo lay xeexee waaw d'accord G5 su ko waa Vox Arena waxee xam nga moom mooy lan waa G5 n'est-ce pas du mooy cinq grands combats. Hmm. ah mooy g bi. Hmm. wala du loolu la xam voilà mooy da dafa am benn tournoi boo xam ne cinq grands combats mu ñoo si nekk yoo xam ne bu benn bu bu ci nekk mu mënoon na feesal euh, arène arène ba léegi nag ñu ñu ne bu bu fa jógee cinq grands combats bu nekk da dafay am pare am lépp bu bu bu fa jógee dafa am benn final eight eight bu ñu def mooy fin fin de saison. da dafay am beneen tournoi bu ñu def beneen gala waaye si si gala boobu dina am cinq mbër yu joge si si gala bu njëkk bi dem waaye nag li li fa yóbbu mbër moo moo koy def c'est-à-dire mbër mi moom mooy wane boppam si gala bi ci wàllu bëre ci wàllu mbooloo ak ci ci ci fànn yëpp ba mën a yóbbu boppam mën a mën a mën a bëriwaat si si deuxième est-ce que yow jàpp jàpp nga ne war nga mën a bokk ci ci ñuy bëree fa fa ay boobu waaw loolu damay bàyyi amateurs yi ñu wax rek parce que alliance bëriwul benn combat bëriwul ñaari combat mhm. eh, bu dee li fay wane mooy sañ-sañ mhm. ak mbooloo nest pas du loolu ngeen wax waaw man moom ku ma xam-xam ne man yëmbal laa dëkk mhm. rawatina bawal eh, ku ñëw yëmbal xam farba farba ku ko xam-xam ko si mobilisation ñun fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee ASC farba moom ku ne xam nga ko si mobilisation bu dee côté boobu moom game mais may profité waale rek comme en di nuyu waale tamit waa farba bi yëpp rawatina Codé Fall suma président fan club Baye Sall suma mag xamaluma la Seydou Ngañ mi may àndal ak Samba seen suma benn gaayan Modou Fall du ma ko fàtte suma gaa yëpp di bëggee tamit suma booy jarbaat Aliou Thiam ak seen waa mafia bi ñoon sang waa mbaar mi xam nga di gërëm waa Jolof tamit waa kii mafia wu ceer guy gi bi Jolof laa dëkk bi xam nga di nuyu waa far ba daal di leen nuyu bu baax di leen wax waaw comme niñ ko daan defee rawatina stade bi. Alliance Birame yow da da da nga ragal ci caatu caatu ngéwél waxuñu waxu Farba. wa waxu caatu ngéwél moom moo ñu findi yow bu keroogee naka ngay def ca caatu ngéwél bi nga ne lo lo lan nga fas yéene di def ca caatu ngéwél bu keroogee. xam nga saaga moom yaa xam te xeex la. xam nga caatu ngéwél ma nekk ni laa koy def ni laa koy def. Hmm. te bu ñëwee bëggoo nga def ko ko. Hmm. xale bu ndaw sax boo koy duma bëggul nga duma ko doo ko duma. Hmm. mais man xam nga la laa mën a wax si moom mooy na taxaw rek ba arbitre génn suñu diggante xam maa ngi koy dégg mu naan man naa taxaw rek la sasuma dara hmm. mais moom it na taxaw rek arbitre génn suñu diggante waaw hmm. ah. parce que am na ñu ne combat eh, piège la dëgg-dëgg ci alliance juram combat piège la est-ce que yow da ci ñuy wax ne ko combat piège la waaw loolu mun naa ko nangu ndax ma neexoon ma ne du ma bëre moom wax dëgg fa yàlla ma neexoon ma ne duma ma ak moom parce que ñu ngi ma doon wax yeneen adversaire yu leen sut yu ko sut fuuf sax wax dëgg fa yàlla ma neexoon ma ne duma ma bëri moom mais dafa am benn grand boo xam ne moo yor sama lépp muy Basir Koyaate rus naa mu ne combat bi la ñuy jël ba xam pare nga mën an ko déet wala waaw kon caat di sama morom tamit ñu war a bëre mais ma neexoon tamit ma ne du ma bëri moom mais teewul ay morom lañ ba tey mais ay combat piège yooyu yëpp combat piège taxul ñu piège la xam nga loolu esprit la quoi ay affaire de xel la rek yooyu moom mettiwul ñun daal xam nañ ne ay mbër lañ ñu ngi si làmb képp ku ñu làmboole dinañ bëri ak yow parce que moom moom nee na lii xew foofu keroog yëpp moo koy def ah. waaw lii xew lépp lépp lépp moom moom mooy bëri mooy xeex moo lay daan moom mooy ñibbi. waaw mais loolu ku ne am nga si droit. mais caat xëy na kooku mu toogaloon yaay booy boobu noonu xaw ma maam jaar bu sa borom xaan la toogaloon xam nga rek kontaan xam nga toog jigéen nekk sa côté dafa xaw a neex te moom yàlla na ma yàlla jégal mais xam na ma xam dafa bëgg benn affaire bi nii xëy na looloo taxoon muy nekk foofu di mbelli rek maa looloo taxoon mu nekk fay mbelli rek xamal laa ko mun mu bàyyi piscine paate yi mu topp nii dem entraîné ji waa jëli combat bi. di dem nekk si piscine paate yi di si naan alliance bi nii man jaabeewu man foofu mooy tudd sax bëgguma ko man sama lépp sëriñ bi la. na may tudd si cant yi mais dem sa piscine paate nekk faak say naasa naan ay ma jàppee alliance biram di sinap di dugal si group yi xam nga yooyu mën na ñàkk na dem préparé ji sa waay moom dafa am combat de nee ko mu xam ne moom dafa am combat te bàyyi piscine paa tey dem liggéeyi. am na combat fan nga wéer am na combat parce moom tam nee yow yaa am combat moom amul combat. ngay bëre ku lépp doole. dàq laa bëre dàq laa xeex gin laa ñeme lu metti nga topp piscine paa tey toog fi ngay toog naan alliance biram ni lañ koy def booy de yuuxu yee. sa loolu dafa yomb de kii Baye Fall bi la de. dara yéemu ma lu dul sëriñ bi. na xam loolu mu préparé bu baax te yooyu muy géem. Mm. Eh, man loolu laa ko mën a wax. Mm-hmm. Ah. bu doon tey la combat bi arbitre bi si si dugg na seen diggante bi Alliance Birame pare nga mu ne waaw ca Caatu Ngéwél pare nga mu ne waaw mu ne piip la la lan moo fay xew. waaw non loolu du sama domaine loolu domaine ñii la ay ñoon Baye Tafaatine ñoon Ceer Guy gi ñoon ñàkk. Hmm. Ndewaan Ndiaye Tine Sall Bambey. waaye ñooñu dugguñu géew yooyu ñooñu man man man man ni may gisee nag yenn saa yi mu bëre benn combat sax ñëw samay supporters di ma di ma ŋàññi man xamal laa bañ mooy ña amoo staff ñun làmb wax dëgg fa yàlla dépassé nañ si làmb ni ñuy ñëwee naan lii la ñuy bëri ñun ñun dañ naan ñun nii la ak nii la ak nii la ñu doxalee noonu ñun si ndigal la ñuy dox rek kon bu keroogee bu la sa staff ko da da ngay taxaw mooy li mooy li caatu ngiwul dox waaw buñu ne ma taxawal xaar ko damay taxaw mais xam nañ ne duñ man xam naa duñ ma wax taxawal xaar ko ndax man ku ma xaarloo mooy demal daanu ku ma xaarloo rek mooy demal daanu ndax mënuma ko waaw benn yoon lañ ma ko benn yoon lañ ma si mës a junj da mm-hmm. gis nga nu mu demee mënuma ko mësuma ko def mësuma bëre combat bi yàgg waaw hmm. ah, bu dul man attaquant nga quoi. non man xaw ma taxaw si bëri. Hmm. wallaahi naa si. waaw runkum su amee seen diggante naka lay demee. kii runkum nga ñëw mu ñëw. xam nga runkum fa lay amee. waaw bu ma ñuy wax ay maag Malick ñaa nga xam ne lii mun naa am runkum mais maag caatu ngéwël runkum fu muy am. non les prix dib la caat bu taxawee dama koy duma comme xale wax naa ko keroog. Hmm. bu taxawee dama koy duma kon xale bu ndaw pour tëj gémmiñam man moom loolu laa ko mën a conseillé comme comme mbër ak moroomam mu bàyyi paate yi dem entraîné ji parce que tamit sa waay ñu fay la xaalis ngay am adversaire boo xam ne ba nga dalee bëree ba léegi mosoo am adversaire bu mel ne moom nga topp usine paate yi loolu yaa ko wax de waaye moom waxu ko ñoom nee nañ ñu am ñu ne yow yow tamit ba nga dalee bëri ba léegi amuloo adversaire bu toll moom maa daan wës jàmbaar wës jàmbaar bo benn rek maa daan mbaytin orka mbaytin junior maa daan booy caa maa daan bu nu mu tuddee di doomu bay laa kooku bombardier ko pour ñoom ñaar sax ñuy ànd léegi xam nga ne kon ah, kon kooku mun da am adversaire mel na caatu ngiwal di am lu muy xof si moom wala lu muy xool si moom man daal li ma ko mun a conseillé na bàyyi paate yi rey boppam waaw di siyaare waala tamit comme waa këram ñi nga xam ne mooy sëriñam ndax dégg naa keroog mu may jaale muy geste bu que tamit xaw moon ne sax moom taalibe Mama Samba Fall ngàcce keroog la ma koy doog a wax ñu ngi siyaare waale njabootu Mama Samba Fall bi yëpp waaw maire yëmbal mooy mu taxaw soutenir ñu xam ne ñun ay doomu yëmbal lañ ñun amuñu lu ëpp yëmbal hmm. buñ amee yëmbal la ñuy ñëw buñ ñàkkee yëmbal la ñuy ñëw hmm. nañ ñu jàppale ak yenn volonté yi nga xam ne dañuy njaabee nit ñi fii di nax nit ñi xam nga yëmbal yëmbal te mënuñu si mbëru yëmbal yi dara loolu man comme man maa fi toog maa ko mën a waxal mbër yëpp nañ ñu ñëw jàppale xam nga parce que ñun amuñu lu ëpp yëmbal ah parce que suñuy làmb instant dafa metti da ngay bëree sa waay doo am ku la jàppale si dara yow miy war a bëree yaay dox lépp yaay bëgg di jaabante xam nga di wax booy tamit combat bi ñu def niñ daan def parce que dañ daan fay 17000 pour dem arène nationale pour dem Ibamar léegi 3000 la ñuy fay arène nationale bu ñu neexee sax dañuy dox kon mën nañ na sotti seeg def si la kon mobilisation man yoruma ko dama koy bàyyi ak ñoom ñu yor seen côté mobilisation ñu xool ni ñu mobiliser yee eh, bu loolu weesoo tamit may nuyu sama waa dëkk muy waa Bambey tundu Bawol gi yëpp waa Bambey waa Réfan waa Battal Ngoy Aliou Sile bi nga xam ne mooy sama cosaan rawatina Battal Njoojom bi waa Baari Ndondol waa boo demee Toucar waa Poudaay meen na xam nga waa Poudaay maa ngi leen di gërëm waa Càngaay nga ñëw Joyin suma waa kër maam maa ngi leen siyaar waa Joyin bu ar da nga bëgg ñu jàpp ci bagage xanaa waaw non pas si bagage sax man damay doomu séeréel nag man foofu yëpp suma dëkk la mun naa ne suba sax fa war a dem seetu ji samay maam a ngi fa ki nga xam ne moo jur sama yaay samay maam yi sama côté papa ñoom ñëpp ñu ngi foofu di nuyu tamit suma gars waa Viringara bu baax a baax a baax ñoon Thierno Sadibou waaw waa Viringara waa Kolda non foofu su ma dëkk la foofu ma amee combat ak ko amul combat yëpp dama fay dem su may xarit dafa nekk samay nit ñoon Thierno Sadibou xam nga waa Baye ba mécanicien yi gars yi maa ngi leen di siyaare bu baax di leen wax nañ ma waajal maa ngi ñëw mhm. waaw ñu def ko comme ni ñu doon defee tamit xam nga di leen jaale suñ papa ji nga xam ne dafay jóge mhm. muy père Balla Gaye waaw di wax yàlla na suuf woyof si kawam. parce que suñ papa la boo xam ne moom dañ daan déglu conseil am bu baax a baax a baax parce que heure bu musaan di toog luy jariñ ndaw ñi rek la daan wax. waaw yàlla na ko suñ boroom borom booleeg malaaka yërmande mu teeru ko fa mu jëm di ko jaale Youssou Ndour. ak famille ñëpp ñëpp ñëpp di ko jaale Balla Gaye 2 xam nga waaye kiri Balla Gaye ñëpp ñu ngi leen koy jaale ak waa géej waa yëpp ay ñoon parti prési ñu leen di jaale Père Balla Gaye ñu fàtte koo wax muy suñ papa Malick Faye waaw ñu koy jaale Laay Faye ak raxam yi pend ñun yaasin ñoom ñëpp ñu leen di jaale seen papa jooju nga jàll leen ma lii nag ndax suñ papa joo xam ne moom wallaahi yaasin buñ musaan am combat du nelaw bu may dem entraînement ma toogee gëj naa lu sax dina ma woo si ruq da waxtaan ak man si lu bëri mhm. mbër baa yaa ngi entraîné dañoo am si yaakaar far ba fii xam nga mhm. tey suñ borom def mu dëdduñu mhm. ñu koy jaale waale waa farba gi yëpp ndax ku xam Malick Faye tamit xam ne moom si staff farba la mos a bokk ñu koy jaale waa farba gi yëpp noonu la demee. très bien jërëjëf. ok